lay nuyu bu baax Serigne Cheikh May Cissé bi jiite délégation bi bàyyee ko Medina bàyyi di jël nuyoo son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ak nuyoo premier ministre Amadou Ba ak nuyoo mbooleem membre gouvernement bi di ko teg ci sa loxo di ñaan nga jottalil ñu ko xalifa général Medina Baye muy Serigne Cheikh May ñas di rafetlu bu baax kàddu yi nga xamante ni jub nañ fii ñu gis ni daanaka gàmmu gi tàmbali na tey ndaxte li ñuy wax ci gàmmu yépp wax nga ko bis la boo xamante ni dañ ciy fàttaliku guddi Seydina Muhammad alayhi wasalaam waaye fàttaliku gi mi ngi nekk ci diggante fàttali ay jikkoom ak ay jàngaleem waaye nga wax ci lu am solo mooy di ci defante ay teraanga ci ni mu ko bëggee woon te lépp dëppoo ak charia ak sunna kon daanaka li nga wax jëmale ko ci gàmmu bi tënk na solo ak dayoo bi nga xamante ni bis bi am na ko ak mbóot yi nga xamante ni làmboo na ko mën a jariñ réew mi yëpp waaye mën a jariñ àdduna ak euh, alam bi yëpp euh, wax nga ko léegi et may rafetlu message boobu muy un message de paix parce que yonent bi Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam ñëpp xam nañ ni euh, yërmande la ci bépp mbindeef te yërmande moom saa yu ñu ko waxee jàmm la lamboo kon euh, loolu nga wootee fàttali ko mu jëm ci wàllu lépp loo xamante ni jàmm la dal ak fàttali jikko yu rafet ak taxawaay yi nga xamante ni ku nekk war na koo taxaw jëmale ko ci askanam ak ci réewam loolu rek mooy njeexital yi nga xamante ni dinañ ko jëlee ci gàmm son excellence monsieur le président de la république Macky Sall démb rek moo ci mujj ci conseil des ministres bi nga xamante ni tàmbali nañ ko mooy conseil des ministres bi njëkk ci gouvernement bu bees bi mu taxawal ci biir waxtaan wi mi ngi ñu ciy fàttali taxawaay bi nga xamante ni war nañ ko am ci gàmm dañu fàttali tamit ni taxawaay bi ñu ci am war koo ànd ak service u état bi yëpp nañu fexe ba li nga xamante ni moom la askan wi di xaar këru diine yi di xaar ci état bi ñu ànd kook ñoom bokk liggéey bi def ko ci ni mu gën a muccee ay kon président ku ne xam na solo si mu jox kër diine yi looloo tax bi mu nekkee ci boppu réew mi ba tey ku ne gis na liggéey bu rëy bi mu def jëmale ko ci kër diine yi mu am programme bu mag mu doon programme de modernisation des cités religieuses ba tax na këru diine boo dem tey di nga gis li nga xamante ni jëmmal na ko fa ci li nga xamante ni daf leen di jàppale ci wàllu diine niñ koy dundee bëggee ko ni ndaxte Sénégal ku ne xam ne ni dëkku diine la dëkku mbaax la waaye dëkku jikko yu rafet la ba tax na président loolu xam na ko xam goo xamante ni naka jekk ci loolu la mës a nekk waaye bi mu ñëwee ci bopp réew mi ni mu ko mandargaalee mooy jël kenn koo xam ni dafa nekk ci pale bi ni ko dama bëgg nga wëral ma këri diine yi xool ma li nga xamante ni war nañ ko fa mën a tàbbil ci liggéey ba lépp loo xamante ni mën naa gën a yéwénal doxin wi ak nañ koy àndeek ñoom ci jaamu yàlla ñu gën koo mën a def kon loolu ci la nekk ci loolu la sant ñu nekk ci loolu it la sant service su état bi yëpp ñu nekk ci réunion bi nag damay rafetlu bu baax ñi nga xamante ni tëddee na ko diggante service yi nga xamante ni ñoo féetewoo ci état bi gouverneur am liggéey bu am solo gouverneur u Kaolack am liggéey bu am solo bu mu ci jot a def laata ñu yegg si fii mook préfet waaye di rafetlu ak di euh, saluer présence su président conseil départemental ak maire Kaolack nga xamante ni ay démembrement wu état bi lañu liggéey boobu ñu bokk ko ànd ak comité d'organisation des manifestation et des activités de la Fayda ñu koy wax commence ñépp xam seen taxawaay ci biir commence ñu ràññee ci ay kuréel yu banqoo sa banqaasoo ci moom waaye tamit am ci taxawaay bu rafet te am solo leeral nañ léegi ni Baye Médical gis nañ liggéey bi ñuy def ak engagement ak détermination bi ñu am te mbooleem médecin ak pharmacien ak infirmier yi nekk ci biir fayda bi tey liggéey jëmale ko ci loolu seen taxawaay di mat sëkk diggante gàmmu ak gàmmuwaat bi ñu saytoo nag mbir mi xool ko bu baax gis nañ ni li ci ëppoon solo ci liggéey bi jàll na suñu ginnaaw liñ ciy dëgmal nekk ci nawet bu jeexagul même bu ñu njortee ni ñu ci cat li am na loo xamante ni dafa laaj waaj taxawaay ak tamit gungi dégg nañ bu baax ci wàllu euh, hydrocureur yi ak pompage yi taxawaay bi ñu si war a continuer di am ba bu ñu yeggee ci bis ba gan yi nga xamante ni dañoo bawoo feneen fudul Medina bàyyi waaye ñi nga xamante ni tamit ñooy dëkk yi te di leen dalal ñu mën a àndandoo def gàmmu bi nii ko sëriñ bi fàttalee léegi ba lépp jàll ci yoon ba gàmmu waat ga su ko defee ñëpp mën a delluwaat seen ay kër tey séentu te amuñu sikki sàkk ca ni loolu sans boroom dina ko nangu ndaxte waxu Baye di waxu Cheikh Ibrahim ñas Baye mu waxal ko boppam mësta ñaan dara loo xamante ni ci guddi gàmm yàlla gàntal na ko kon bërëb bu gàmmuwaay la waaye bërëbu dem gaaw njëkkante wuti njariñ la kon loolu ñu ngi koy rafetlu te amuñu sikki sàkk ni lépp luñ fa ñaan suñu borom dina ko sotti mu doon yiw doon sutura doon teranga doon jàmm waaye tamit doon yokkute ci képp ku fa teew waaye amul sikki sàkk ci sama gëm-gëm ni dina laawaale ba laal képp koo xam ni tamit teewu fa loolu mooy li nga xamante ni mooy kàddu yi ñu bëggoon yëkkati ci turu président de la république Macky ak ci turu premier ministre Amadou Ba ba jàllale ko ci membre gouvernement bi